ko ci élégance boo xam ne ak euh, pertinence boo xam ne man aw ma ko moo tax ma ne wax ji mun naa bañ a gudd gannaaw buñ leen gërëmee ci tertu bi nga xam ne lu rëy la si ñun euh, dañ leen di sant dañ leen di sant ndax euh, xam nañu résultat bi ñu amoon fii ci élection bi passé te loolu lu rëy la ci ñun ndax wóor na ma ni élection législative bu ko jiitu muy 2017 su dee amoon nañ fi ay baat warul weesu waa ji nee ñett la woon ñetti ñetti baat lañu amoon fii ci dëkk bi donc bu ñu demee ba ne cinq ans plus tard ñaari bureau yi am ci dëkk bi ñun ñoo gañe benn te ñëpp xam ni maire bi ci dëkk bi la dëkk kon dañuy sant yàlla di gërëm waa dëkk bi yëpp te loolu li muy firnde rek mooy 2024 gën saa néew gëm naa dinañ fi am 80 pour cent lu ko ndax ay xeetu élection yi dafa bokkul leer na ma ni bëri nañu nekk ci dëkk bi voteluñ ñu woon parce que li ñu bokk ak wala li ñu séq ak maire bi moo tax waaye seen xol soo ko seetoon ba ci biir ñun ñoo ci nekk élection présidentielle nag moom du doomu dëkk bi feneen la te li sëñ Dieng wax rek ñi war a samp seen dënd yëpp ci élection présidentielle bi kenn ku nekk ci yéen mun na am ràññetle ba mun a def laa différence sëñ Dieng li mu wax dëgg la yàgg nañoo wóolu nit fii mu wor ba li fi nekk tey yàgg nañoo wóolu nit bés buñ ko dénkee rek mu mel ni du moom waaye kooku soppikuwul soppikuwul de ni mu meloon rek la continuer parce que góor du soppi ko ni mu meloon ñun ñooy ñàkk am seetlu nag parce que dama naan nit day nekk ci nguur am na nu mu nekkee woon ci nguur googu bi muy dugg ci nguur gi kenn xamu ko woon te yoru woon alal mu nekk ci nguur gi ñetti at ñeenti at juróomi at juróom benni at kenn mësu koo dégg mu ne ni ñu yore nguur gi d'accord ma ci ba li koy génne ci nguur gi du ñàkk d'accord ci ni ñu yore réew mi wala programme bi ñuy doxal loolu taxul mu génn ci nguur gi nangu gi ñu nangu liñ ko dénkoon moo tax mu mer daal di ngemb te bu muy génn génn na ak alal loo xam ne ñëpp xam nañu ci alal réew mi dama faral di wax ni toujours gis nga homme politique ñaar la mooy discours bi li muy wax loolu nag homme politique yëpp a neex la mel discours bi waaye nga jël nga bàyyi discours bi seet ñaari bi mooy lan mooy parcours bi jaar-jaaram fépp mu jaar naka la fa taxawee lan la fa def lan la fa jël lu moomut noonu la ñuy xoolee homme politique moo tax suñu nee nit wóolu woon nañ ko mu dem ba ci biir soppi ko dama naan soppikuwul noonu la mës a mel noonu la mës a mel dama fekk sénégalais bu ñu nammee changement ñoom dañ naan ki fi nekk na dem rek ku ñëw baax na loolu nag moo war a jeex fi mu ne nii tollatuñu ci folli dañoo toll ci tànn dañoo bëgg 2024 mu doon premier fois boo xam ne sénégalais yi dañoo tànn tànn ci kii laa bokkal diine wala tarixa wala ethnie wala euh, kii moom a neex waaye dañuy tànn ci jaar-jaaru nit ak li mu wone ci bëgg réew mi ak li ko réew mi jaral ak li ñu yaakaar ci moom ci njub parce que yooyu su dajee ci njiit rek defar réew yomb foofu la ñu toll moo tax ma ne sëñ Dieng wax na lépp suñu programme dafa mel ni da koo tari ba mu jeex tak ci biir bu gàtt te moom nee na daanaka soriwul ci jàng école jàngul sax loolu nag mooy doole Pastef tey bu njëkk ba dañ doon wax ni intellectuels yi ñoo ñoo ñoo xam Pastef après ñu ne ndaw ñi la waaye léegi man su ma génnee di dox mason yi chauffeur taxi yeeg mari yi rek ñoom ñooma ëpp sax lu ñu may interpellé ñi nga xam ne ñi dem nañu école kon ça veut dire fi projet bi waroon egg egg na fa te Sénégal ñëpp am xel ñëpp am xel Sénégal bu kenn complexe yi ñu naan la yow jàngoo xamoo lu xew ci réew mi mm. déedéet léeg nga gis ku demul école mun la génneel ci situation loo xam ne étudiant bi nekk quatrième année mun la ko wax kon ñi ngi sant yàlla bu ñu amee ni tey sénégalais yépp suñu yaay yii xam nañu lan mooy projet Pastef mm-hmm. ndax xam nañ ni moo gën ci seeni i doom ak seen sët mm-hmm. kon loolu moo ci am solo la ca des nag mooy am na fu ñu jëlee liggéey bi di dox di dox ba andi ko fii mm-hmm. yeggali ko moo des juróomi weer wala fukki weer ak juróom-ñaar ba juróom-ñett moo ci des mhm. pour ñu yeggali liggéey bi mhm. waruñoo sàggane nag parce que imam diine sax danaan mujj mujj bi moo moo am solo mhm. nit jaamu na yàlla jaamu yàlla jaamu yàlla ba ñëpp ne wàllu yu la te pourtant bi mu génnee àdduna ñu ngi koy buggal ci bàmmeelam parce que am na jëf ju mu jëf ci mujjantal bi bu yàq lu bëri nit def na lu nekk ci lu bon te pourtant ñu ngi koy ñu ngi koy kii ci bàmmeelam ndax lan ndax ab xaj wala muus bu mu fekkoon mu sonn mu rootal ko jox ko mu naan kon action niñ koy yeggalee moo am solo soo ko jëlee ci lamb bi da ngay gis ñu ne mbër bi moo def action bi yëpp ba ñu ne daaneel na waa ji def benn galgal rek bu xalam kon mënul finaliser fi mu ne nii ci yeggali liggéey bi la bu leen jàpp ni liggéey bi dafa door ak ñun de liggéey bi depuis indépendance wala avant indépendance ba léegi am na ay génération yu xeex li ñu doon xeex ñoom Cheikh Anta Diop ñoom Mamadou Dia ak ñeneen ak ñeneen ñoom dee Diop waaye yàlla mayu leen ñu egsi fii ñu yegg bu ñu sàgganee nag surtout yéen jeunes yi laay waxal bu ñu sàgganee ba seetaan Macky Sall ak tubaab yi yàq lii dinañu toogaat cent duñ ko am foofu lañ ko toll moo tax la ñu bëgg mooy li ngeen def di leen félicité yéen ñi ah. mm, merci parce suñuy ndaw man man dama leen xool ba si yàgg dañ may yéem ndax ñoom ñëpp ñu ci bari bokk boo matul tey la doo doog gisee mag ñoom kon ñoom jëm mu taxu leen jóg dañoo gëm ab projet wóor na ma bi ñuy door fii nee na 2017 ñoom ñett ñi ñoo fi voté woon pour ñun ñetti voix tey ñu mun a gagné benn ci bureau ñaari bureau de vote yi fi nekk gëm naa ni 2024 ñooy gagné ñaari bureau de vote yépp incha kon loolu seen liggéey la ñoom la ca des mooy nañu wéyal liggéey bi ni ko Dieng waxee carte de mooy soppi réew du wax ju bëri du ne ci internet bi di posté suba ngoon du toog di naan ataay di commanté du su Ousmane Sonko ñëwee ñu génn carte de membre mooy munition bi moom moo ñuy permettre ñu yeggale liggéey bi na ko ñëpp dem uti ku ko am loolu rek ne ko uti kuñ ci newoon mun ne ko pas voter bu ñu ubbee demal ci commission ba parce que liy indi erreur yi mooy nit day dem police ut carte police carte d'identité lay joxe du joxe carte électeur waaye soo demee ci commission ba ca préfecture wala sous préfecture boobu moo lay jox carte électeur na ko ñëpp dem ut waaye continuer di liggéey di taxawul cellule yi di sensibiliser ñi nga xam ne dese nañu comprendre lan mooy liggéey bi lii moo ëpp solo ci li ma leen di wax parce que leneen ñu fi wax doyen Diouf mbirum suuf mbirum ndox mbirum école bu ñuy jàngee mbirum dispensaire bu ñu fajoo mbirum ndaw ñu amul liggéey mbirum yoon biy ñëw ba ci dëkk bi loolu moom Sénégal yépp ko bokk dëkk boo dem ci Sénégal même chose dañ lay wax moo tax ñun vision globale lañ ci am mooy ku bëgg a defar réew da ngay fexe ba alal réew mi nga dugal ko fii farata gis nga farata réew mi mu ngi ci monde rural bi mu ngi ci mbay mi mu ngi ci napp gi mu ngi ci càmm gi soo jaayee suufu réew mi jaay géeju réew mi te financé wu agri euh, euh, napp euh, càmm gi nooy développé réew soo taxaw taxawloon fii ay usine te yow li ñuy wax secteur primaire mbay meeg càmm geeg napp gi dara mënul mënul produire dara usines yooyu lan la ñuy transformer te loolu mooy économie moo tax ñun dañu ne li ñu wuteleeg waaj mooy dafa cuune gis-gis bi baaxul toog dëggante Dakar ak Diamniadio suul fa ay milliards dakaar lan nga fay bay lan nga mun a def ci dakaar ci koom-koom amut ñu ne léegi quatre pour cent économie Sénégal mu nga Ndakaaru Ndakaaru c'est moins de un pour cent du territoire national pare ñu bëgg nit ñi toog ci àll bi duñ ko def dañuy dem Ndakaaru ku bëgg a defar réew da ngay suuxat sa àll soo demoon ci dëkk tubaab yi booy tukki ay Belgique nga xam ne dëkk yu ndaw la Belgique matul sax région de Kaolack waaye Belgique daf ñuy may ceeb loolu yoon la ñoo ko ëpp suuf ñoo ko ëpp ndox lépp ñoo ko ëpp kon liggéey bi dañ ko war a changer complètement gis-gis bi lañu war a changer loolu am nañ ci lu leer te bind nañ ko ci programme la ca des mooy sa xalaat nu mu baax baax baax sa gis-gis nu mu baax baax baax te yeggoo fu ñuy jëlee décision yi amul njëriñ Sénégal lépp bind nañ ko mu ngi ci tiroir yi loolu nag lañu war a yegg yeggali ñu ngi di gërëm di leen bu baax kontaan nañu ci dalal bi di leen ñaan ngeen yeggale suñu nuyoo ci waa dëkk bi yëpp ñi fi mënut woon teew te am yaakaar trop ci li ñu gis mooy suñu ñëwee ba ci fii gis ni waa fii ñoo ñu gën a comprendre ñun sax suñu projet ñun suñu xel day dal su ma ragaluloon am na lu ma ay xale wax démb bi ñu demee géréw bi ñuy dugg kër imam bi xale yi dañ ma ne yow looy sonn di tourné demal tëdd dina law taxaar 2024 gañe nga ba noppi loolu bu ñu ñëwee ci dëkku dëkku kaw bi gis ko ndax ba léegi nag suñu score yi gën a baax ñu ngi ko doon am ci dëkku taat yi waaye gis nañ ci def nañ perse yu am solo ci élection yi passé ci dëkku kaw yi waaye bu ñu ñëwee ba fii dégg discours yi ma dégg ci def euh, sëñ Dieng dama naan dafa mel di xale yu gërëm ñi ñi ngi commencé wax dëgg kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox di daje beneen ñu ñaan yàlla suñu tànk bii du bañ doon tànk bu mujj asalaamaaleykum wa rahmatullah